asalaamaaleykum wa rahmatullahu taala wa barakatu muy tuddeel xaaji Sidy Kunta déedéet ren la gën a yaatu parce que daaw cant la woon cant murit kese la woon waaye ren cant murit la daanaka cant tijaan la cant religion yëpp la daanaka festival salaam lañ def lu rëy daal la nga xam ne ñëpp xaj nañ ci woo ci tarixe yëpp waaw bis bi nag euh, tuutiwut ci man quoi parce que nekkul nekkul lu ndaw ci man waaj naa ko ànd seeg ñu ma ci war a àndal ñëpp ba bis bi yegg tey ku mel ne Baye Daara Kanj ku mel ne Serigne Maxuus mbake ku mel ne Soxna Daba Falilu na bu ma limee damay juum gars yi jàpp na ci ba mu toll nii ku mel ne Jaw Baas Ahmed Mbuub Gànna Gueye sam papa vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp jàpp na ci bu baax a baax ba bis tey màgg ba tol nii waaw bis bis nag jaay ñu ngi bis mais bis du kenn rek ko mën bis boo ko déggee da ngay ànd ak ña nga xam ne ni ñooy ñooy sa am di jàmb euh, ñooy sa staff ñooy sa fan sa club ñëpp laa ci àndal gaa yëpp ci si jàpp ku mel ne taala taala Cuun ku mel ne Bas ku mel ne euh, Baye modu euh, Alou bari na ñu ci jàpp mu mel nii kon man awma seen fay daal. ci luñ ci si séntu mooy yàlla may ñu ay wér parce que kon ko tey bii mooy troisième édition saxal nañ ko buntu pos ñu dem ba tey ñu dégg ñu grand grand théâtre loolu lañ ci séntu.